dal leen ak jàmm mbokk yi fii ci GCB gannaaw ba ñu indi leen ay xibaar wala bokk leen ci information yu tukkee ci ñetti activistes yi ñuy jàppoon ci mbirum audio boobu ngeen doon dégg Clédor seen di ci wax mel ni daf koy envoyé kenn ci ñoom gannaaw ba nag la ñu dem jàpp ji ki nga xam ni moom mooy Assane Diouf la ca biir këram gannaaw baat la ñu jàpp ki nga xam ni moom mooy Guy Marius Sagna Clédor seen mi nga xam ni moom mooy yëkkati yooyu la kàddu yëkkatiwaat na yeneen kàddu ci kanamu yi ginnaaw bi ñu laajee Assane Diouf ci mbirum audio boobu wax na ni audio bi moom wàccul ci ab téléphone am xamul lan mooy audio ak yëgul audio bi mu audio ba tax ñu di ko jàpp gannaaw ba gii mari Sagna dafa garder li nga xam ni moom mooy ay waxam àdduwul ci mbir yi Clédor Sène mi wax audio bi moom indi na ay leeral ci mbir yi wax ni amul lenn lu Assane Diouf def amul lenn lu Guy mari Sagna def bu def dee am kay moom moo wax audio bi te amu ci lenn lu ci nekk loo xam ni war na mën a taqal Assane Diouf wala Guy mari Sagna loolu Clédor Sène mi ngi ko yëkkati ci kanamu enquêteurs yi di wax ni moom mooy responsabilité wu audio boobule moo ko def moo ko wax waaye yoonu Assane Diouf ak Guy Marius Sagna nekku ci ci audio boobu moo xoon mu tasaaroo ci sociaux yi